asalaamaaleykum mbokki déglu dal leen ak jàmm ca Côte d'Ivoire barke de moo Ndiaye la Alassane Dramane Ouattara xam leen ne moom mooy nekk euh, candidat wu te nag euh, bii mu nar a nekk ñetteelu yoon boo xam ne daal bëgg na ñu daal di koy tabb mu daal di nekk njiitu réew fële nga xam ne moom mooy ca Guinée Conakry ki nga xam ne it moom mooy Alpha Condé moom it ñu ngi koy lamlamee ne dafa euh, bëgg nekkaat candidat ci wàllu élection présidentielle yu ñu bal fii ci biir Sénégal tamit dara leerul nag ci ay mbiru kii di Macky Sall jëmale ko ci wàllu ñetteeli mandat tey jii kon yéenekaay bii di Sud la def jëmale ko nag ci yenn ci ay dëkk yu nekk fii ci biir Afrique te nag seen i la ñu bëgg moom mooy am ci lu tollook ñetteeli mandat suñu naataango yi tey jii daal di ci seq waxtaan sax ak professeur Moussa Diaw nekk ab jàngalekat fa li nga xam ne moom mooy ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ak Momar nekk journaliste wante yi di faral di yëkkati ay kàddoom ci wàllu politique ñoom nag tey jii daal di def ab jàngat jëmale ko ci wàllu gi mel wax lan moo waral tey jii ay njiit it bëgg na indi ay coppite ci wàllu constitution bi ngir rek gën a toog ci bopp réew mi ba ja njëkk moom mooy ne ñooñu dañuy sukkandiku ci ñi xam ne dañoo xarañ ba ñu wal leen ci yan yoon la ñu war a mën a jaar ngir gën a mën a toog ci réew mi wante it leneen a ngi nii moom mooy ne dañuy bëgg a nag di wéy di toog ci bopp réew mi ngir daal bañ yenn ci ay mbuuxum yoo xam ne dañu ko jotoon def ñu dal di koy fësal leneen a ngi nii tamit moom mooy dañuy faral di jël seen njaboot di leen dugal ci biir doxalinu réew mi te loolu moom dañu ko nemmeeku ci ñetti dëkk yooyu yooyu kon nag tey jii wàllu ñetteeli mandat moom la coolikaay bii di Sud Quotidien daal di euh, xëyee ñu daal di jukki jëmale ko nag ci mbas bi di coronavirus ndaxte coolikaay bii di tribune mi ngi ñuy xamal ne feebar boobu moom dina yàgg fii ci mim réew ndaxte la mu bëgg a de la ñu koy defaral tey jii su fekkente ne nag daal di nañuy tere ñu amal ndaje lépp ngir xeex feebar bi di coronavirus ñu gis nag ne tey jii la wàllu gën a ndaxte ndaje yi ñu ngi koy continuer di ko amal rawatina nag euh, ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci géej sax bu fa police ñëwee dañuy dàqante ak ñoom fële nga xam ne nag moom mooy ci diwaanu Bakel rawatina nag ci gox bi di Ballu coolikaay bi di 24 heures moo ñuy xamal ne ay ndaw dañu leen tere ñu amal ab match football ci benn terrain ndaw yooyu daal di mer ba fut dem daal di caxat caxatee nag gendarmerie ba fa nekk gaañ ca nag ci ñaari gendarme coolikaay bi di 24 du ñu xamal ne gouverneur bu diwaanu Tambacounda di Mamadou Oumar Baldé ba mu yëgee li ni mel nag daf ko daal di naqarlu yónnee ñu daal jàpp ndaw yooyu nga xam ne nag ñoom ñoo def ñaawteef googu muy xamle ne ndaw yooyu nag dinañu teg ay daan ci seen ndodd mbas bi di covid 19 su fekkente ne nag bëgg nañu mu daal di jóge fii ci mim réew faw nag ñu daal di def ay sarax faw ñu daal di amal ay ñaan yu bëri wante it faw ñu daal di topp nag dicté yi nga xam ne daal moom la ñu fi daal di amal te delloo lépp ci loxo yàlla ki yëkkati kàddu yu ni mel moom mooy xalif général des Tidiane di Serigne Babacar di waa Grand Place mi ngi Babacar Sy Mansour la muy digal jëmale ko ci euh, mbas bi di Covid 19 moom mooy sarax ñaan ak tamit tuub ndaxte lii du feebar kese li ab balaa boo xam ne nag moom la fi suñu borom wàccee kon nag faw ñu daal di delluwaat nag ci moom ngir mën a fagaru ak tamit faju ci wàllu li ni mel laas yéene kaay nag moom moo ñuy xamal ne ki jiite kuréel bii di GAIPES moom dafa daal di jébbal ab citation directe directeur de cabinet bu Alioune Ndoye ak tamit kii di directeur de publication bu autolikaay bii di laas la ko waxal moom mooy ne di Fodé Fall dafa daal di bindoon benn contribution fësal ko nag ci biir jolikaay bii di laas ci biir contribution boobu sax ma nga ci doon ñëwaat nag yoo xam ne dañ cey joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne nag moom moo jiite GAIPES mu ko doon laaj mu daal di ci indi ay tontu dafa mel ni ne Sayar Seck àndul ci kàddu yooyu nga xam ne moom la directeur de cabinet bu Alioune Ndoye daal di fësal moo tax ba mu bëgg mbir yi ñu daal di koy yóbbu ci yoon fële nga xam ne nag moom mooy ca Sénélec liggéeykat yu nekk ci biir kuréel bii di Sudeten ñoom nag ñoom ñooy fësal seen kàddu jëmale jëmale eh, ko ci directeur général bu Sénélec di Pape Mademba Bitèye ndaxte ñoom fu mu nekk nii nee nañu daal ci ni mu gën a gaawee bëgg nañu am ay leeral jëmale ko ci ay compteur yoo xam ne waa Sénélec dañu ko commandé ci këru liggéeykaay nañu de ñu daal di fësal te a yoo xam ne nag waa Sénélec daal dinañu koy xaatim te nag ba léegi kenn bugg ko fësal Dakar Times moom di ñëwaat ci wàllu wàllu terrorisme di ñu xamal ne ab kuréel bu tudd centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme daal dinay def ab jàngat jëmale ko nag ci secte bi di Boko Haram te mu daal di nekk fa li nga xam ne moom mooy ca Nigéria ñoom sax la ñu gis moom mooy ne kuréel boobu moom ci atum 2022 dootul amati suñu naataango yi di ñu xamal kon ne jàngat boobu war naa intéressé bu baaxa a baax groupe Sénégal ndaxte bëri na ay ndaw yoo xam ne nag fii ci biir Sénégal ñu bàyyeekoo dem ba ca bokk ci jeexale ko ak julikaay bi di libération di ñëwaat ci kenn ku amoon mbas bi di covid 19 ñu ko doon fàcc te centre de traitement des épidémies ba nekk ca Novotel moom nag dafa am kenn ku ko sàkku woon kooku nag nga xam ne moom moo def ñaawteef gi ni mel tey jii caabi féete na ko gannaaw ndaxte même su fekkente ne sax daal dinay weddi tuuma yi nga xam ne moom la ñu tekk ci ndoddam julikaay bi di libération mi ngi ñee xamal ne soxna ga ñu def ñaawteef gi moom daf ko xàmmee ràññee ko loolu tey jii moom moo tax ba caabi féete ko gannaaw lii moo nekkoon bokk julikaat yi yéenekaay yi ñu leen di ñaanal njaxtalu bés mesdames et messieurs bonjour le spectre du troisième mandat présidentiel continue de parasiter le champ politique des pays africains surtout ceux francophones aujourd'hui nos confrères de Sud Quotidien se sont arrêtés sur ces trois pays à savoir la Côte d'Ivoire la Guinée et le Sénégal en effet la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry se signalent avec des interprétations de la constitution modifiée pour limiter les mandats à deux uniquement et le Sénégal interprétations vont bon train et déhons cela par le clair-obscur entretenu par le chef de l'État Macky sur ses intentions de briguer ou non un troisième mandat en Nos confrères de Sud Quotidien se sont aussi entretenus avec le professeur Moussa Diop, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et Momar Diong, journaliste et analyste politique. Et ces derniers livrent leur diagnostic sur ce phénomène des voir dans certains pays africains. Interpellés par Sud Quotidien, ils ont pointé du doigt, entre autres, la connivence de certaines élites intellectuelles et politiques, l'autocratie, la malgouvernance et la présence de la famille ou de l'ethnie dans la gestion des affaires publiques. Donc, dans Sud Quotidien, le professeur Moussa Diaw et le journaliste Momar Diong cernent l'origine du mal concernant le troisième mandat. Pour ce qui est de la pandémie du coronavirus, tribune, la covid a de beaux jours ici au Sénégal à cause de l'indiscipline affichée des Sénégalais. En fait, nos confrères ont constaté que les rassemblements se poursuivent de plus belle, des rassemblements constatés euh, surtout sur certaines plages. Les jeunes jouent à cache-cache avec les forces de sécurité et à Balo, des jeunes ont attaqué la gendarmerie parce qu'on leur a interdit de jouer au football à Bakel. Deux gendarmes ont été blessés, leur brigade gouverneur de la région de Tambacounda, très en colère, déclare que ces jeunes seront sanctionnés. En tout cas, si on veut s'en sortir avec cette maladie, il faudra faire des offrandes et des prières et aussi se taire pour être en phase avec les recommandations divines. Ce ne sont pas mes propos, mais plutôt ceux de Serigne Babakarsi Mansour, le ralif général des Tidianes. Nos confrères du journal Vox Populi ont remarqué que depuis quelque temps, rapport à la pandémie du coronavirus qui, rappelle-t-il toujours, n'est pas une maladie comme les autres, mais une malédiction divine. Nos confrères de Wa qui nous rapportent également les propos du Khalif général des Tidjanes nous indiquent que c'est dans une vidéo rendue publique par nos confrères de Asfiyahi que le Khalif général des Tidjanes a vivement recommandé de faire trois choses essentiellement Sarah Toup Nyan, donner l'aumône, se repentir Maritime vont solder leur compte au tribunal. Ce sont nos confrères du journal LAS qui nous le font savoir, car nos confrères nous indiquent que le président du GAIPES, Sayer Seck, a servi une citation directe à Fodefal, ainsi qu'au quotidien LAS pour publication de la contribution de ce dernier. Et nos confrères nous rappellent que dans cette contribution, l'ancien préfet de Sédhiou et Kaolack détaille la procédure et interpelle Sayer Seck sur certaines pratiques Sénélec, c'est le Sudeten, le syndicat unique des travailleurs de l'énergie qui ouvre le feu sur le directeur général de la boîte. Ces travailleurs veulent des explications sur les compteurs intelligents israéliens de Powercom commandés dans la précipitation et ils se demandent aussi comment on peut publier le contrat Akili et le vulgariser partout et dissimuler les autres contrats. Qui protège-t-on? C'est la question que se pose le Sudeten. Et nous

confrères de Libération qui nous parlent de cette affaire de viol sur une malade du coronavirus au centre de traitement des épidémies de Novotel. Selon nos confrères, le sieur a été inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier par le juge du sixième cabinet. Il est accusé d'avoir abusé d'une malade du coronavirus internée à l'époque au Novotel. Le mis en cause ni les mais plusieurs éléments l'accablent. C'est tout à vos journaux